أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci kitaabu tawxid di dugg tey ci buntab ñaar fukkeel ak ñaar bunt bi di jàngale ma jaa ann baad hadihi l umma yacbudu l awthaana bunt bi di jàngale wax ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne àdduna du jeex mukk lu dul xeet wi danañ nekk ay bokkaalekat danañ jaamu ay xërëm lii nag daf ñu war a firil sunuy nopp ubbi sunuy dënn yaatal sunu dégg-dégg ci waxu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yonent bi toog septième siècle di wax loo xam ne tey ci xeet wi ku ne teg na ci sa bët wax ji mu wax ne anna baada haadihi l umma lenn ci ay nit ci xeet wi kon ci xeetam lañ bokk haadihi l umma xeetam la doon wax nee nañ danañ dem ba yaabudul awthaana ñuy jaamu ay xërëm nga gis jullit buy jaamu xërëm yaakaar naa loolu leer na tey nga gis jullit bu takk béjjën jullit bu takk xaaw takk lam jullit buy sangu ci xàmb jullit buy dem ci ay xërëm dem ci ay géndal kon tey leer na nañ jullit buy sujjóotal bàmmeel kon wax ji leer na ne xeet wi du jeex lu dul nit ñi danañ nekk ay bokkaalekat borom téere bi bunt bi mu ci njëkk indi ci ay aaya mooy baad aouzu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim mooy wax ji yàlla wax ci suratu nisa aya 51 borom bi subhanahu wa taala mu ne alam tara ila alladina utuu nasiban min alkitabi yuminuuna biljibti wattaaxuut borom bi ne yow muhammad alam taalam xanaa xamoo aha kay ñenn ñi di firee alam tara unzur wa taajab xoolal te waaru xoolal xool goo xam ne da nga ci war a jële waaru wala nga dégg dégg boo xam ne da nga ciy jële yéem kiimtaan lan la la yàlla di xooloo mu ne ilal ladina jëm ca gaaña nga xam ne uutu joxe fee woon na leen maanaa jox nañ leen nasiban benn cër minal kitaabi ci téere bi ci xam-xam yàlla mayoon na leen xam-xam ci tawraat wala ci injil allahu akbar waaye ñooñu yàlla mayoon xam-xam ci injil wala ci tawraat yàlla joxoon leen ci cër ñu am ci dégg-dégg bu rëy waaye ñooñu dem nañ ba yuminuuna bil jibti dañoo dem ba gëm xërëm bu xaaba njabar waaye wat taaxut ak xërëm gis ngeen aaya bi yàlla dane muhammad xoolal gaa ñi nga xam ne dañoo am xam-xam ñenn ñi naan ulaika alyahud allazina utu hazzan min al ilmi lenn ci ay yahud yoo xam ne yàlla da leen mayoon xam-xam waaye yusaddiquuna bi kulli ma yubadu min dunillah waaye ñoom kat xam-xam bi leen yàlla may jëriñu leen ndax lu tax dañuy dëggal lépp lu dul jaamu yàlla dañ koy dëggal min al asnaami wa shayatin dañuy dëggal ay xërëm di dëggal ay seytaane seytaane yoo xam ne ay nit lañ wala ay jinni min as min al insi wal jinn wa yaqulu allazina kafaru billah wa bi rasulihi haulai alkafiruna aqwamu wa a'dalu tariqan min allazina amanu yemuñ ci sax ci dëggal xërëm ak bokkaaleeg yooyu waaye dañu ne yéeféer yi ak bokkaalekat yi ñoo gën a baax li jullit yi nekk gis ngeen aaya bi nekk sunu kanam nii muy suratu nisa aaya 51 li yàlla di xase yahud yi ak nasaraan yi moo dal jullit yi tey li aaya bi di wax ci ñooñu nga xam ne utu nasiban min al ilmi min al kitab ay min ilmi al kitab loolu moo dal jullit yi ndax leen gisu leen bi jullit boo xam ne ak kaamil bi mokkal na ko gisu leen ko waaye mi ngi takk fii ci loxo bi fii ci mbagg bi mu ngi fi takk wala gisu leen loolu gisu leen loolu gisu leen côté bi mu takk gisu leen mu takk ci ndigg li ah gis leen mu takk ci baat bi gisu leen muy xërëm muy def muy muy dem muy moom ci boppam sax mu nekk njabarkat moom moomu yàlla may xam-xamu alquran mu mujj nekk njabarkat di bind ay lasraar wala mu nekk benn buxaaba wala gisu leen lool boo waxee mu ne la non man njabaruma waaye man ay rawaan laa yor rawaan bu ngeen dégg loolu ñun duñu ay njabarkat mais ñun raw ay rawaan lañ yor ñun yoruñu ay jinne képp ko dégg mu ne la lawaan rawaan laa yor wala rab la wala jinne la yooyu yëpp seytaane la yëpp a yem li gën a doy waar nag mooy yow nga xam ba pare dëgg ci sa tànk di def lu la neex boobu moo gën a bon te ñii lool moo leen dal mooy ñi yàlla subhanahu wa taala di wax ci aaya bi mu ne baat bi ñu naan aljibt ci aaya bi lan lay tekki mu ne ismun li kulli ma ubida min dunillah aljibt ismun li kulli ma yubadu min dunillah tur la woo xam ne dañ koo boyal lépp loo xam ne nit a ngi koy jaamu te du yàlla rek loolu jibt la taaxut nag taaxut xam ngeen jàng ngeen usulu salaasa wala taaxut juróomi sa juróomi ponk la ko firi mu ne principal bi mooy seytaan wala du la loo juróomi firi la ko firi principal mu ne bi gën a mag nee na mooy seytaane mooy seen mooy seen bàyyi yeneen yi doog a ñëw mu ne sawaun kaana sanamayni aw rajulayni sawaun kaana sanamayni aw rajulayni moo xam mu nekk moom taaxut boobu xërëm la wala nit la soo bàyyee nit ñi jaamu la yow léegi taaxut nga saa yoo bàyyee nit ñi jaamu la rek yow taaxut nga mu ne lii di al wasan muy xërëm yutlaq bi kulli ma qusida bi nawin min anwaa al ibadat min duni illahi min quburin wa mashahid wa gayriha li qawli xalil alayhi salaam innama tacbuduuna min duni illahi awsaanan wa taxluquuna ifka ankabut suratu 17 mu ne xërëm mooy lan lan mooy xërëm yenn saa yi ñu ne nit yow da ngay jaamu xërëm mu ne man du ma jaamu katu xërëm bu ma ko waxati fekk jaamu katu xërëm la lan mooy xërëm ñu bari dañuy jàpp ne xërëm mooy nga dem ut benn estati nga ñëw dugal ko sa saal wala sa biir néeg ah nga naan ko "Euh, comme noonu gars yi doon def wala nga koy raay xam nga léegi nit ñi duñ def noonu wala kenn dem ut garab yett ko wala nga dem ci lawbe yi jënd affaire bu yooyu ñu yett nit ñi bàyyi nañ yooyu wala ah mais di nga dem ci photographe bi mu defaral la sa photo sëriñ mu defaral la ci cadre bu ngand mu taxaw toll na yow jëmm ji alaysa kazalik ngandu cadre nga dugal ko sa sa saal wala sa biir néeg saa yoo xëyee teg ci sa loxo loolu am na wala amul léegi loolu lan la yenn saa yi sax nga nga nga nga nga nga ñëw sukk ne talal ko loxo yi ah nak mbir yaa ngi bëgg a ñaaw de ay sëñ bi mbir yaa ngi bëgg a ñaaw de ah léegi loolu lan la loolu ci lan la bokk waaw waaw waaw photo waaw hein? gis nga ñu soog a nuyoo loolu xam nga moom mooy li ñu doon wax léegi léegi te loolu ñaata nit ñoo koy def am na benn jigéen boo xam ne Sénégal gi la nekkoon nijaayam nekk États-Unis d'Amérique ay at benn jour nijaay yee am gan États-Unis foofu mu nekk gan gi dafa dugg ci saalu nijaay ji rek gis ngandu photo kenn ci kilifa diine yi ku dëkk Sénégal mu gis photon mu ne ko fekk jox na ko album am muy seetaan muy seetaan di seetaan ba gis benn xale bu jigéen bu rafet mais xale bu jigéen bi ma leen di wax fii la dëkk mu ne ko waa kii nag am na jëkkër mu ne amul jëkkër de rek mu siggi rek mu ne ko may ma ko ci barke kii mu ne ko may naa la ko ci barkeem rek ñu téléphoné fii nijaay ji téléphoné na ko may naa la wala kenn takkul see bi may ma ko ci barke kii rek mu ne ko may naa la ci barke kii ñu téléphoné fii waa ji yónnee xaalisam ñu ne ñu ne ndaw si maye nañ la fële jeex na xam nga lu yàlla def mooy waa ji dee foofu balaa muy ñëw gisanteelu ak ndaw si waaw billaahi wallaahi taala waa ji dee foofu su ñëwoon fi day njaaloo ak ndaw si yàllaa ko musal parce que sëy bi kenn takku barke kenn kenn du ci takk sëy ñoom bu doon loolu la koy yonent saa salaam buy takk ba- sëy saxaaba yi mu ne maa ngi koy takk ci sama barke ah waaye gis nga diine ji dañ koo jàngale du question rek nit ki di def loo neex comme benn waaye ni mu fi doon def boo waxee mu ne juróom-ñaari muurul mun na takk sëy takkul sëy sëy dafa am lu ko yonent bi jàngale ne noonu lañ koy takkee léegi nag bu ko nit ñi bàyyee ku nekk def loo neex bu bu kii indee juróom-ñaari mbay kii indi juróom-ñaari sàmba kii juróom indi juróom-ñaari yoro kii indi juróom-ñaari ngañ fu ñu jëm affaire bi day nekk sa mbëxtaloo ku nekk def loo neex te l'islam du loolu l'islam ay ponk la yoo xam ne yonente bi alayhi salaatu salaam moo ko jëlee ci yàlla indil nu ko saa yoo bëggee def dara da ngay wax nan la ko yonente bi defoon ñu ne la nii la ko yonente defoon nga defee ko noonu waaye nga ñëw def loo neex ba pare ne ci islam laa nekk sa lislaamu bopp nga nekk mais nekkul islaamu yàlla beeg bu yonente bi mu ne pour ñu dégg baatu xërëm mu ne dañ koy firee yuttulaq dañ koy boyal kullama qusida lépp lu jublu lu nit jublu bi nawin min anwail ibadat lépp lu nu jublu ci façon jaamu yàlla yi nga jublu ci kudul yàlla ci xërëm nga ko def boo sujjotee ci xeer xeer bi xërëm la boo sujjotee ci weñ boo sujjotee ci bant boo sujjotee ci nit boo sujjotee ci bàmmeel loo mën a def defoo ko ci yàlla te muy jaamu loolu xërëm la ak lu mu mën doon nag mu ne loolu ibrahima xalil moo ñu ko leeralal ci alquran ibrahima fekk na ay nitam di def tey li mel ne waa sénégal di def mu ne leen innama taabuduna min dunillah awthaanan lii ngeen di jaamu te du yàlla ay xërëm la ba pare wa taxluquuna ifka caaxaan rek ngeen di sos fen ngeen di saf sos ma taabuduna min dunillahi asnaaman wa taftaruuna kadiba lii ngeen di jaamu te du yàlla ay xërëm la te yéen a ngi sos ay fen kon kuy jaamu xërëm rek yaa ngi sos fen yaa ngi indi yoonu fen xoolal pour ngeen xam ne jaamu xërëm sos yoonu fen la xoolal tey nu mu bëri ngeen yoon yi ni mu bëri lan moo tax yoon yi bari mooy dañoo nangu ku ñëw rek woote ñu ne nit ñi dem leen wuy ji su ay nit demee wuy ji nga leen yéen li ngeen def caa ay caaxaan la ñu ne la non gis nga gëmal li nga gëm ñu gëm liñ gëm léegi ci Sénégal ñaata yoon ñoo fi nekk ah ñaata est ce que yonent bi bi mu fi toogee mu jógee fi Aboubacar ñoo remplacé Aboubacar dafa jaar beneen yoon indi leneen lu bees lan ngeen dégg Aboubacar indi na ko ci la dafa indi façon julli bu bees indi na ko dafa indi beneen war bu yonent bi indiwul woon beneen façon julli beneen façon leneen Aboubacar li yonent bi indi woon xool Aboubacar mi mu ñëwee xam ngeen lu mu njëkk a def tanfiis jay su Usaama Aboubacar bi mu ñëwee dafa fekk yonent bi daal di formé woon benn guerre guerre bi mu leen di yónni ci ñuy xeex yonent bi jël benn xale bu tudd Usaama ne yaa koy jiite am na ñu ci d'accord woon ci saxaaba yi xale bu ndaw bi mag ngi nekk fi xale bi di jiite far yonent bi génn àdduna kon bu fekkoon Aboubacar day sos yoonu boppam bi mu ñëwee lan la war a njëkk a dindi ñaa mag ñi waaye yéen mag ñi dégg naa li ngeen doon ruuma ndaat li ngeen doon wax dégg naa ko comme yonent bi nag moo fi nekkoon yàlla jëlee na ko fi def ko man dinaa ko dindi mu gis nga bi ko gaa yi waxee xam nga lu Aboubacar wax yonent bi du def dara man ma koy dindi ana Usaama Usaama mu ne mu ne maa ngi nii te keroog bi Aboubacar di wax ak Usaama Usaama maa ngi ci kaw fas bi Aboubacar taxaw ci su jàpp ci nga laabu fas bi di ko di ko dénk Usaama bëgg a wàcc ne ko xalifa rasulullah xaaral ma wàcc tolloog yow mu ne ko eh ndigal moo la teg ci kaw toogal dindiwu ci virgule waaw ñun ñi ñëw fii xalifa bu toog indi lu bees ku toog ku ne indi lu bees pour lan pour ñu ne yow yaa fi indi lii ku toog lu ne sopp ci diine bi lu yonante bi wax indiwul woon ba léegi Sénégal kenn xamul ñaata kuréel ñaata mbooloo gars yi dañoo soppee soppi ba soppi mbax na yi mbax na yi soppi mbubu yi wala d'accord leen ci li may wax soppi baatu laa ilaha illallah bi ku nekk am sa laa ilaha illallah kurus yi sax dañ koo soppi kurus yi wala kenn bëggul waa fu ñu jëm wala li may wax yéen tegu leen ci seen bët ah man de dama ko gis wax dëgg yàlla dama ko gis kurusu sàngam mbax ne diw yenn saa yi sax nga bokk feneen sol mbax ne ñu ne war a sol mbax ne bi ah wala fu ñu jëm la yenn saa yi sax nga dem benn jàkk ñu ne loolu foofu loolu jàkk bi jàkk yi sax dañ koo soppi ku nekk ak sa jàkk lii du diine diine mooy yàlla kese kese kese kese kese kenn waru koo rax kenn waru cee dugal farfarloo beneen baat beneen aaya ci suratu Shu'ara aaya 71 wa qaalu qaalu na'budu asnaaman fanazallu laha aakifin allahu akbar ibrahima keroog bu mu laajee gaa yi waaw ne leen waaw li ngeen nekke lu mu xam nga lu ko nit ñi tont qaalu na'budu asnaaman ñun ay xërëm la nuy jaamu waaye li ngi lay wax ne bu yeboo nga xam ne xërëm yi fanazallu laha aakifin fii ci la ñuy dee yenn saa benn waaye ne la gis nga bu yeboo nga noppalu man ci laay dee ci laay dee di ko wax ak wax joo xam ne nag la ilaha illallah yow beneen yoonee sax da ngay moytu quoi ndax waa ji ni mu waxee ak yow lii ci laay dee kenn mënu ma cee dindi da ngeen di sonn rek ndeysaan loolu la ñu wax Ibrahima Ibrahima gis gars yi di jaamu xërëm mu ñëw pour ñu bàyyi lan lañ ko wax na'budu asnaaman fanazallu laha aakif ibrahima noppalul ñun fii la ñuy bóof ba dee allahu akbar wala rek benn waaye danoon wax mu ne réer weesuwul nit di dem ci loo xam ne du diine waaye naan dundu dem dee dem xool kooku fu mu toll dundu dem dee dem ñu ne waaw luy loolu mu ne bu may dund damay dem bu ma dee tamit fa lan may yóbbu suul ma dundu dem dee dem kon naa dem rek allahu akbar léegi nag ki gëm dund dem dee dem kooku mun nga ko tere bokkaale non mais non waaw ngay dégg ñu ne non bu nopp bu sëñ bi noppalal sa bopp gis nga man lii lii lii noppalal sa bopp bul wax lii ci laay dee ma njëkk laa wax ba pare te booy dee nga dee ci lu leer nit ñi dañoo xamul lu nekk ci dee moo tax
kërë kërë nga man suñu liggéeykaay.
waaw koo xam dafa waat ma ne fekkee ndax man yàlla bu ma eh, ñu daje sëriñ nangam.
ah mooy loolu ma dégg nga li mu la mooy yeneen nit naa dee su may dee ci lii laay dee tee ngaa dee ci lu neex yàlla bis boo dee ci lu neexul yàlla du baax de parce que ginnaaw dee ak àdduna du benn te dund lu waa dund ak lu waa dee du benn xam nga nit ñi li leen réer mooy dañu yaakaar ne fële ëllëg kilifa yi mën nañ fa dara moo tax ñu nekk lii nu nekk am na ci ñun ñoo xam ne jàpp nañ ne diw ëllëg mu ngi ci kanam taxaw yor caabi ci nii lay def ci mbooloo mi naan ana ñoom diw jaar leen nii taxaw leen nii yéen ba ma ñëw la ilaha illallah ay waay ay waay réer a bon ay waay réer baaxul réer réer musiba la yal nañu yàlla gindi yal nañu yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ba tey rek ci suratu safaat Ibrahima rek gis ngeen Ibrahima ni mu sonne moo tax ñu tuddee Ibrahima imaamul muwahidin Ibrahima li mu daj ci tawxid mburu daju ko ci ci ci fëriñ ma fëriñ daju ko ci xa- ci safara moo tax ñu tuddee Ibrahim imaamul muwahidin gis nga. ñëwaat na ci suratu safaat aaya 95 mu ne leen ataabuduuna ma tanxituun waaye yéen da ngeen di jaamu li ngeen di yat li ngeen di yat naka la nit di defee photo photo photo photo nga defar photo bi nga yóbbu ko ñu cadre la ko nga yenu ko ñëw wékk ko ci sa saal yaa ko defar de yaa ko jënd yaa ko romb ci télé bi ñu ko ñu la koy jaay nga jënd ko ñoo dugal ko sa photo néeg am na ñoo xam ne buntu kër gi boo duggee da ngay fekk ngand photo nga dugg saal bi gis ngand photo nga dugg seen néegu biir fekk fa pour ñoom kër gi ku fi dugg rek na xam ne ñun fii lan bokk waaw ku mu neex ku mu naqari loolu du diine ba pare barab yooyu ku fa julli amoo julli fépp photo ne wékk ku fa julli amoo julli fépp fu nu wékk photo mun a danga dangaaral ku fa julli amoo julli léegi nag kër yu mel noonu ku fa nekk ci looy nekk ci looy dund yonent bi nee na bu leen julli fu ñaar nekk xaj ak photo waaw bu leen fa julli mbokk yi ci yàlla fa bi zalika yu'lamu anna alwasan mu ne ci lii aaya yii la ñuy xamee ne xërëm yutlaq alal asnaami moom mooy loolu ñu naan awsaan moom mooy xërëm yii wa gayriha mimma ubida min dunillah ak yeneen yu ñuy jaamu te du yàlla sax te du foto wa qawluhu mu ne wax ji nga xam ne wax na ko yu'minuna bil jibti wa taaxut ndax da ngeen di gëm li ngeen di ay xërëm ak ay njabarkat ndax da ngeen di gëm loolu mu ne rawa ibnu abi xaatim an ikrama qala jaa huyay ibnu axtab wa kaab ibnu al asraf ila ahla mak boroom xam-xam bi nee na jële nañ ci abi xaatim abi xaatim jële ci ikrama nee na dafa am ñaari nit yu dikkoon ci waa màkk kenn kaa ngi tudd xuyay kenn kaa ngi tudd kaab nit ñee ci waa màkk qaalu lahum antum ahlul kitaabi wa ahlul ilmi yéen dey yéenay ñoñu téere yéenay ñoñu xam-xam ah loolu di leen jay yéen de yéen a jàng mooy ni mooy ni gouvernement bi di def rek gis nga këru diine yi bu ñu xewlee ñu yónni fa kenn ci gouvernement bu ñëwee lu muy wax yéen yéen a yor mbir mi am na ministre yoo xam ne sax ci jamono Abdoulaye Wade moom du ñu dóor leen waaw gis nga ndax dañoo wax wax yu wax yu ëpp ci wax yu demee noonu maanaam mooy jayaate yéen yéen a ñaanoon mu naan yéen fii moom fii luñ fi ñaan rek mu am gis nga moo tax président ne na ngeen ko ñaanal gis nga yooyu moom loolu la gaa yi def dem waa màkk ni leen yéen ahlul kitaabi wa ahlul ilmi fa axbiruuna anna wa an muhammad waaw léegi nag yéen waa Màkka dañ leen di laaj ñun ak muhammad kan moo gën ñun ñii ak waa ak muhammad ñun li nu nekk ak muhammad lu nekk lan moo ci gën gis ngeen de yéeféer yi benn bopp lañ yu weex yeeg yu ñuul yi yu njëkk yeeg yu yàgg yi yi am ak ñi ñàkk yi xam ak yi xamul yonent bi nee na al kufru millatun waahid yi kéeféer benn yoon kese la yow yaa fi nekk naan déedéet déedéet c'est que américains yi ñoom ñoo tane anglais yi wala anglais yi ñoo tane français yi wala non français yi ñoo kéeféer ñëpp a yem ñëpp a yem feeg nag sa bopp dugaloo ci loolu yonent bi wax la ne la benn yoon la ñoom ñëpp a yem da ngay nax sa bopp bi ñu waxee loolu qaalu ma antum wa ma muhammad ñu nag muhammad kan moo gën ah ñu ne yéen ak muhammad daal yéen a yem yéen daal yéen a yem yéeféeri wax leen loolu bi ñu leen waxee loolu qaalu ñoom ñu ne nahnu nasilul arham ah kaa leen ñu wax leen ñun li ñuy def pour ngeen xam ne ñun ak muhammad yemuñ ñun dañuy jokk mbokk wa nanhalul kawma danañu loj gëléem gu màgget rey ko saam ko joxe ko wa nasqil ma dañuy nandal nit ñu ndox ñu naan alal laban dañuy maye sax soow wa nafukkul ana dañuy fekk jaam bu ñu tënk nit libéré ko wa nasqil hajij dañuy fekk ñi aji màkka ñu may leen ñu naan wa muhammad nag sumbuur muhammad nag moom benn nit kott la bu deewee mooy loolu ñu naan abtar su deewee jeex na moom jeex na xataa arhamana dagg na sunu mbokk wa atbaahu suraqaul xajij ñi gën a dof ci ajkat yi ñoo ko topp min xifaar ci ñoo ñu jógee xifaar dëkk bu tudd noonu fa nahnu xayrun aw huwa ñu ne waaw ñun ñoo gën wala ku mel nii gis nga ñoom nu ñu ñu leerale seen bopp ak nu ñu raxase seen bopp ak nu ñu sangee seen bopp ak ni ñu doya di la yonent bi qaalu waa Màkka ne leen antum xayrun yéen yéen a gën muhammad wa ahda sabilan yéen a gën a baax yoon yoon wi mu nekk bi ñu waxee loolu rek yàlla daal di wàcc aaya bi ne xoolal alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yuminuna biljibti wattaaxut wa yaquluuna lillazina kafaru haulaai ahda min allazina amanu sabila ndeke aaya bi dafa am sababu nuzul sababu nuzul bi mooy lii ñu laaj ikrama ak xuyay ne waa bokkaalekat yi yéeféer yi ak muhammad kan moo gën waa màkka ne leen yéen a gën muhammad yàlla dal leen lu tax ndax ñoom wax dëgg yàlla ahlul kitaab lañ xam nañ jàng nañ xam nañ ne ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla duñ benn hal yastawi allazina yaalamun wallazina la yaalamun ku xam ak ku xamul duñ benn moo tax yàlla subhanahu wa taala wàcce aaya bi ne xoolal alam tara xoolal yow muhammad xanaa xamoo ila allazina ci gaa ñi nga xam ne uutu joxeef joxoor na leen joxeef na leen nasiban benn cër minal kitaabi ci téere bi ñu am xam-xam aaya bi dafay wane ne képp ku am xam-xam képp ku jàng yàlla dénk la dara ci téereem bi waroo yem ak ñeneen ñi te waroo jël téere bi def ko téere njabar waroo koo def téere laqatukaay téere buxaaba téere gisaane moo tax soxna soosu bu toogee ci télé bi naan leen barke laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah da leen di nax rek benn loolu mu waar sax du waar ndax jàngu leen fenn barke laa ilaha illallah fan ngeen ko jàng ndax mas ngeen ngeen dégg yonent bi naan barke laa ilaha illallah kon waatam yooyu rek ay caaxaan la benn nga doon ñaareel bi mooy kenn du waate laa ilaha illallah muhammad rasulullah muhammad kenn du ko waate ba pare ak njabar lay def parce que ay jinne la lëkkalool jàng ngeen alquran wa annahu kaana rijalun min al insi lu ci tegu yaawuzuuna bi rijalin min al jinni fa zaaduhum rahaqa ay jinne la lëkkaloon jinne yi ñoo koy indil ay image ñoo koy wan ñoo koy xabaar waaw ñun suñu diine nanguwul loolu muy def nanguwu ko képp ku dëggal soxna soosu génn nga ci lislaam képp ku ko gëm génn nga ci lislaam ñun suñu diine nanguwul loolu ndax loolu ak këram la rawatina nag ñi nga xam ne dañoo jàng ñoom téere bi téere bi leer naan nañ ñi ci ñoom ñooñu ñu bàyyi fi alxuraan di gëm jibt ak taaxut yemuñ ci loolu waaye wa yaquluna lillazina kafaru haulaay ahda min allazina amanu sabilan ñu ne yéeféer yi ñoo gën a baax jullit ñi li ñu nekk loolu am tey ci àddina bi bokkaalekat yëpp dañuy wax li ñu nekk ñoo gën a baax jullit ñi li ñu nekk yéen ñi di gëm di yéen ñi di jéem a góorgóorlu ci alxuraan ak sunna yéen ñii laa wax di jéem a góorgóorlu ci alxuraan ak sunna ñi nekk ci bidaa yi lan la ñuy wax ñi nekk ci bidaa yi lan lañ leen di wax yéen yéen da ngeen di font rek yéen da ngeen di caaxaan rek te nekku leen ci tos ah ah waaw loolu lan lay wax lu nekk lan lay parce que lu tax yow nee nga du ma bokk benn waaye dafa ñëw barki démb sama kër sama xarit la woon ay at boobu ay xale lañ takk gu ñu soxna ñu doon ànd ma gëj ko gis mu ñëw sama kër nag ñu toog di waxtaan mu jékki-jékki mu ne ma yow mbaa yaa ngi sang sa doom yi ma ne ko sang ah ñu ngi sangu de mu ne non waxuma sangu kii de sa- sang yaa ngi leen sang ci affaire yi ne ko affaire yan yan affaire mu ubbi saakam ma gis ci ay reen ay sunguf ay mu ne ma yii ngay ngay def ci kii Ii, sëñ bi yow yow de daal am na leen loo fekkaat de mu ne lan lu mel lan ma ne ko ñun yi yi gëmuñu ko lii xale yaa ngi nii sax boo leen ko bëggoon sang sax dañuy bañ mu naan xale yi xoolal na ngeen sangu ma ne ko ñii dañuy sangu dañuy ñëw wax rek li ñuy war a sangoo ñoom mokkal nañ ko bu ñuy xëyee dañ koy wax bu ñuy génn dañ koy wax jeex na ñoom ñëpp a ngi nii laaj leen laaj leen ban ñaan rek te duñ la taril mu ne ñaan kese du doy foog nga sangu ma ne ko déedéet yonent bi waxuloon saxaaba yi sangu leen de ñaan la leen joxoon ma ne ko bàyyi ñu rek ci li ñu yonent bi joxoon rek ñun ñu jàpp ci li ñu yonent bi joxoon doy na xam naa ne moom géej na ma gis waaye dina ma gëj a gis parce que dootu fa ñëwaat waaw gis nga nit ñi yàlla kese kese lañ mënta nangu yéen di ngeen naan yow doo naan doo takk doo sangu loolu lañ la wax de doo takk doo naan doo diw doo xool leen oto yi xool leen accident yi oto boo gis te xool leen accident yi ni ñu bëre oto yooyu yëpp baar bi dafa may gàllaaj wala wala yenn saa yi ñu wan la nit ñi dee nga gis gàllaaj yi seen ligg yi kon kay ana li ana ana lu tax est-ce que mucc nañ mucciñ kon loolu du mucculoo kenn defal li la yàlla sant wallahi lazim maa ngi leen di giñeel ci yàlla ne bi may jógee Casamance dama accidenté bi may jógee Casamance sama yoon bi billahi wallahi wa taalahi dama accidenté waaye tax waxuma ko damay bañ nit ñi tiit beneen yoon bi ma leen ne maa ngi tukki ñu xalaat loolu mu ne moo kenn sunu oto dafa wàcc ci tali bi dugg àll bi ba mbëkk garab te xoolal lu ñu yàlla nate woon ma maa ngi ci kanam maa ki ma àndaloon bi oto bi mbëkkee garab man fi ma toogoon damaa jóg maa ngi ci kanam bi ma jógee damaa bés pare-brise bi pare-brise bi dali fële kon xanaa ñun mënoon nañoo génn oto bi taxaw gis nga waaye lu ñu sante yàlla ba oto bi taxawee man li ma njëkk a xalaat mooy ndeke bi ñu bi ma yeggee Kaolack ba oto bi taxaw ñu koy defaraat man damaa boole sama timis ak sama gée damaa boole timis ak gée duggaat ci oto bi toog ba oto bi daw def loolu gis nga oto bi mu taxawee li ma njëkk a xalaat mooy man moom bu ma doon dee tey yoruma booru julli parce que boole naa timis ak gée loolu laa njëkk a xalaat tey jii moom bu ma dee woon yoruma booru julli ndax sama timis ak sama géej julli naa ko pare te heure boobu ñu accidenté c'est sûr que ne bu ma waxoon na damay bàyyi ba ma egg si Dakar ma julli géey parce que timis maa ngi ko jullee Kaolack dañuy génn mbuur rek oto bi dugg ci àll bi beneen oto moo ko song rek mu bàyyi tali bi dugg ci àll bi ni rëll ci ay garab oto bi ñëpp di yuuxu jigéen ñi ñëpp di yuuxu waaye xoolal lu mu sant yàlla kenn gaa ñëwul ñu sant yàlla moo tax nit da nga war a di bàyyi xel sa borom subhanahu wa taala ay du takk gàllaaj oto ba kenn gaa ñëwul bagage yi dara dara tuuruwul te oto bi daw na ci àll bi te fi mu wàcc subhanallah mënoon naa jaaxaan parce que tali bi ci kaw la nekk te ci xur lañ wàcc bi muy bi mu wàcc première pneu bi laalul suuf dafa wàcc ba ni rëng dugg àll bi di daw ba mbëkk garab taxaw xoolal loolu nga xam ne kon jullit day dénk boppam yàlla du ay gàllaaj du ay xaaw du ay laar du ay pettaaw du ay xërëm mooy tax nit mucc nit li koy muccloo mooy yàlla subhanahu wa taala ak def say askar booy dem fenn nga def say askar booy génn nga def say askar loo fooy dem looy def la yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant nga def ko booy dugg sa kër booy génn booy tëdd boo yeewoo booy dugg ci toilette booy dugg ci oto boo toogee ci oto bi yooyu ab jullit daf ko war a bàyyi xel waaye bu fekkee yow ay xërëm nga gëm ay gàllaañ nga gëm ay béjjén ay ay pettaaw ay kànnaar boo foo nekk boo ci fàttee boo ci fàttee benn ne dem leen jëli ko wala nga taxaw ne def leen demi tour chauffeur defal demi tour damaa fàtte samay téere damaa fàtte sama gàllaaj yow boo yoroon oto bi nga tourné ñëw corne pir pir ñu ne ni nga ni eh, jox leen ma sama ndombo yooyu loolu du diine loolu du diine loolu yàlla na ci yàlla musal mbokk jullit yi ñëw na ci musnadu imam ahmad ci ibnu abbas lu mel nii ñu jëlee ci omar ibnu alxataab mu ne al jibt as sihr gis ngeen jibt omar moom li mu ko tekkee mooy njabar mu ne wa taaxuut as shaytaan taaxuut lan la ko tekkee mu ne mooy shaytaan ibnu abbas nee na ak abul ali ak mujahid ak hasan wa gayrihim nee na ñoom tamit lii lañ wax loolu omar wax ibnu abbas lool la wax abul aliya lool la wax mujahid lool la wax hasan lool la wax ñoom ñëpp bi ñu leen laajee baat yi lan lañ wax ñu ne ak jibt as sihr jibt mooy njabar taaxuut mooy shaytaan ibnu abbas waxoon na wax waxaan na wax ju mel noonu mu ne al jibt as shirk wa anhu al jibt al asnaam gis nga jëlee nañ ci ibnu abbas ba tey mu ne jibt ba tey mooy xërëm mooy asnaam mooy xërëm yi ñuy yat kon nañu xam ne lii boroom xam-xam yi duñu jàngal moom mooy dëgg jawhar nee na jawahiri mu ne aljibt kalimatun taqawa ala sanam wal kaahin wa saahir wa nahwu zalik boroom xam-xam bi nee na baat bii di baatu jibt te yàlla wax ko ci aaya bi nee na baat la boo xam ne dañ koy firee lépp luy xërëm lépp luy buxaaba lépp luy njabarkat soo boolee njabarkat ak buxaaba ak xërëm ñoom ñépp jibt lañ saa yoo gisee njabarkat nga ni ko yow jibt nga wala taaxuut nga wax nga dëgg parce que njabarkat boo gis xërëmkat la xërëmkat boo gis buxaaba la buxaaba boo gis njabarkat la ñoom ñi benn lañ mbokk jullit yi mu ne ci aaya bi ñu jàng wa fiihi maarifatu l iman bil jibti wa taaxuut fi hadha al mawdi ci la ñuy xamee baat boobu di baatu xërëm baat boobu di baatu taaxuut ci baat bi fii la ñuy leeree ne baat bi lii lay tekki ndax boroom xam-xam yi noonu lañ ko tekkee mu ne kon dana war ci ñun ñu gëm li ñu borom xam-xam yi wax ne baat yi loolu lay tekki te ñoom ñëpp ñu jëlee ko ci saxaaba yi saxaaba yi wax leen loolu te xam ngeen ne alxuraan buñ koy firi ni ko yàlla firee aaya yi la ñuy firante ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam firee ni ko saxaaba yi firee looloo ci jiitu yàlla bu firee benn aaya ne nii la yonent bi ñëw ne nii la sahaaba yi ne nii la keneen bu ko bëggee indee neneen comme comme fan yi xam ngeen noonu na benn waaye bu bind téere ci planning familial benn islamologue xam ngeen lan la waxee ne planning dagan na nee na yàlla nee na innama amwalukum wa awlaadukum fitna dégg nga de nee na comme yàlla nee na doom fitna la rek kon planning dagan na nit na moytu doom voilà xoolal ni mu firee aaya bi gis ngeen gis ngeen waaye jooju nekk université te chaque jour mu nekk ci télé noonu la firee aaya bi innama amwaalukum wa ah waaye comme nañ bàyyi wutum alal bi tamit loolu la wax nee na innama amwaalukum wa awlaadukum fitna boobu adduwun lakum boobu nee na kon doom fitna la noonu la kon na nit ñi bàyyi yooyu parce que doom yu bari baaxul nee na boo amee doom yu bari rek da ngay nekk ci fitna gis nga nee na kon planning dagal na xoolal est ce que loolu na yonent bi firee woon aaya bi noonu la ko saxaaba yi firee woon loolu moo tax ñu am problème tey kon yal na yàlla def si ñun dégg ak topp kon nañu xam ne ci baat bi huwa itiqaadun qalb nañu am pas-pasu xol bi wala mu nekk muwaafaqatu ashaabiha maa baadiha wa maarifatu butlaaniha lenn lu ci mun a nekk ci wax yii pas-pas bi nga ci am na nga ko fasee ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam fasee woon ak sahaabatu kiraam nga xam ko ñoom niñ ko xamee woon nga dégg ko ñoom niñ ko déggee woon nga daal di ci génn bu fekkee lu ñu yàq la lu ñu ne daganut ñoom lu ñu wax rek loolu moom mooy li nga xam ne moom moo li ci nekk kon lii mooy sunu dars tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah tafaddal